tey dañ ñu fi yónni ci turu président de la république Macky Sall ñu fekk si bés bu am solo boo xamante ne daf ko yitteel ndax sëñ Babacar li tubaab di wax visionnaire moo xamante ne day gis loo xam ne yegg seegul sëñ Babacar Sy visionnaire la woon ndax ba muy dénkaane juróomi dénkaaneem yi tey soo dégloo day mel ni du boo bés boobu la ko dénkaane tey la ko dénkaane tey la gën a nekk actualité tey la gën a yell gën a méngoo ak jamono ndaxte bi jiitu muy ndénkaane sunu diine ku la dénk sa diine dénk na la lépp ndax sunu diine mooy li nga xam ne mooy ñoŋal sunu tey ba pare ëllëg mu may ñu sunu ëllëg alaaxira ñu liñ ci yaakaar yépp ñu mën ko am kon ñoŋal sunu diine mooy ñoŋal sunu àddina ba pare ñoŋal sunu alaaxira ci ñaareel bi digle bi nga xamante ne moom la dénkaane muy dénkaane bi nga xamante ne mooy sunu tarixa senegal yàlla dafa def li ëpp ci ñun dañu wéeru ci tasawuf muy loo xamante ne lislaam bu rafet la te lépp ci tasawuf dafay dellusi ci rafetal muy ixsaan te ixsaan boobu di rafetal mooy tax ba ñun ku ci ne soo gisee ku jë méngoo ci tasawuf danga koy xàmme màndarga bi gën a maatu yaatu mooy sama papa sëñ Abdou Aziz Al Amin ku ko gis ci yaatu dënnam ci oyofam ci tabeem nga xam ne kii tasawuf moo ko mooñ kon tarixa bi suñ ko jàppee bokk na li nga xamante ne mooy aar sunu senegaal bii yàgg naa wax ne Sénégal balaa muy am pétrole balaa muy am gaz balaa muy am or li ñu yor te mu gën a rafet mooy suñu diine bu jekk bi nga xamee ne mu ngi ko wéer ci tasawuf moo tax may wax toujours nit ki na góor góorlu ba li nga xamante ne moo tax ñi di ko xàmmee mu moytu ko boo jubb bi tax mu ñu koy xàmmee mu moytu koo wot balaa muy réer te loolu xam naa ne tasawuf am na ci solo ñetteel bi mooy lu am solo ci jamono ji muy sunu métier métier mooy liggéey te sëñ Babacar ne woon na dalay fànqal gàcce xale yi nañ ko war a déglu ndaxte liggéey mooy métier tey dama kontaan ba ma gisee ne programme bi nga xamante ne moom mooy ziyaaru ren bi moom mooy nan la ñuy def ba jàppale xale yi ci daayira yi ci liggéey ak ci dal loolu suñ ko waxee delluwaat nañ ci waxu sëñ baabakar muy métier waaye su ñëwoon fii tey ñu bare duñu defaraat seen jikko duñu defaraat seen taxawaay suñu waxee tool xel yépp dem ne buleel ci sëñ Musta sëñ Cheikh Tidiane suñu waxee tool ñépp xalaat jagsaaw suñu waxee tool ñëpp xalaat jàmm gën suñu waxee tool ñëpp daldi xalaat Saalum ak sëñ Abdul Aziz Al Amin li ci topp ci dénkaane muy daayira daayira nag mooy li ñu indi fii tey daayira mooy keno bi nga xamante ne moo téye tasawuf bi ñu yor ñun ndax ci daayira ca njëlbeen daara la woon waaye sëñ Babacar ci xelam bu yaatu ba ñu ñëwee gis ne ñun ñaa ngi jóge ci daara yi ci àll dëkku kaw yi di ñëw ci taax yi mu xam ne dañu war a soppi daara bi def ko daayira moo tax daayira nekk ëttu jàng ëttu gindiku ëttu xam-xam waaye tam ëttu tarbiya pour delloo nit ñi ci li nga xamante ne mooy yoon wi daayira ci nga xam ne mag mu jàngul woon fa lay ñëwee mottali xam-xamam ki xamoon tam fa lay ñëw gën a ñoŋal xam-xamam waaye lu weesoo loolu daayira boobu xel dafa nangu ki nekk PDG ak ki nekk planton ñoo ci yem ñoom ñëpp ñooy bokk benn toogaay ci biir daayira bi muy jàngat ak jàng ci daayira bi léegi comme li ñu ko waxee léegi dañ ko war a def ci métier boole ci liggéey moo tax may gën di ñaax ñi nekk ci daayira bi moo tax ma kontaan parce que gis naa ci programme bi ngeen def dañ ci yaatal nu ñuy def par xam-xam président de la république nag président Macky dafa teg ay outils maanaam ay liggéeyukaay yoo xam ne daayira yooyu mën nañ ci sukkandiku war nañu gën a jege li ñuy wax 3FPT muy pour jàngalewaat nit ñi ñi nga xam ne dañu soxla xam-xam ñu jàppale leen ci nañu gën a jegewaat ñu mel ni DER pour ci financement yi waaye itam nañu gën a jàppale jegewaat itam ñi nga xamante ne mooy pole emploi pour que ñi ne ci daayira bi ñu wan leen nan la ñuy jàkk ba formaliser wu am na ñu ñuy wax société coopérative yu gën a dafa méngoo ak daayira kon xam naa yooyu yëpp dinañ ci gën a jaaxal waxtaan ak euh, nit ñi pour xool ne que président la république teg na fi yu bare yoo xamante ne daayira mën nañ ci sukkandiku pour gën a am koom te soo amee sa koom day mënal sa bopp te ku mënal boppam fenkal sa bopp gàcce loolu sëñ Babacar ko wax juróomeel bi mooy sunu yoonu Tiwaawan suñu yoonu Tiwaawan nag mooy ziar ziar nag yàlla xam na ne ku ci ne mën ngaa yaakaar ziyaada ndax ziar moom ku ci ne te mu dëggu ci yow nga war a yaakaar ziyaada kon loolu mooy li nga xamante ne ziar di yeesalaat pas-pas su yeesee yeesalaat pas-pas muy itam bés walla ëtt boo xamante ne nit ñi dañ fi ñëwaat pour fajub aajo ziar bésub fajub aajo la lu tax ma dellu siwaat te taxaw ci mooy Sénégal dafa soxla loolu fii ñu toll nii sëñ Cheikh président de la République nee na ci ziyaar bi nga xamante ne bésub faju aajo la ñu ñaanal Sénégal ñu ñaanal senegaal ba senegaal mucc ci ay bi nga xamante ne am na ñoo xamante ne su doon seen sago fu mujj ñu ñaanal senegaal ba senegaal nekk ci jàmm ñu ñaanal Sénégal ba Sénégal daal di dal ndax dal boobu ak jàmm jooju moo gën leneen lu nit di mën a wut ndax loolu moom mooy li ñu may li ñu fi ñu toll tey jii ba képp ci àddina bi daal di ñu koy ñee mooy jàmm ji nga xam ne moo am Sénégal kon sëñ Cheikh nga waxal ko bu baax xalif général président la république mi ngi koy nuyu mi ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal chifa yàlla na naa yi nga xamante ne da koo teg muy loo xamante ne mooy ndamu tarixa bi yàlla na ko yàlla def mu fekke ko ba ñun ñi ñëpp ñu ànd ak moom dugg si biir jumaa ji mu jiite ñu